koy ziar bu baax a baax awa ak faama ñoo ngi teew lu eh, si biir subateel daf leen di jaral tele bu coupé sax seen kër dañuy dem ci boutique bi di seetaan subateel xam nga ñooñu amuñu seen fay eh, kon nag merci beaucoup ci doolent gi nga xamante ne moom ngeen ñuy dooleel bés bu ne eh, kon nag professeur Danfara ginnaaw bi ñu tollee ci yow nag dañuy waxtaane lu ñuy yokk bës bu nekk ak saa su ne ñu fas yéene waxtaane encore rek wàllum développement personnel comment identifier et gérer les obstacles qui nous privent du succès mhm. justement mmh. alors maa ngi lay <laughs> gërëm euh, Asma donc euh, lan moo ñu tere euh, am ndam damay toujours def différence diggante ndam ak tekki li wolof yi di wax tekki mooy la réussite mhm. li ñu wax ndam mooy succès mhm. le succès benn nit c'est personnel ah alors que boo nee tekki kii tekki na mooy askan bi maanaam société bi gis na njëriñ ci moom mais nit mun na am succès te askan bi wala population yi mbokkam et cetera gisuñu njam euh, njariñ mhm. donc souvent dañuy def souvent erreur et donc c'est important ñu xam différence bi diggante succès ak ak euh, réussite mhm. beneen bi itam mooy obstacle mooy lépp loo xam ne euh, lépp luy gàllankoor mhm. ah su fekkee nit dafa bëgg def dara wala dafa bëgg egg fenn lépp lu koy gàllankoor moom la ñuy wax obstacle li nga xam ne liy gàllankoor premier premier obstacle bi mooy euh, sunu euh, li ñu lépp luy bonloo suñu xool bokk na ci euh, bañ nit mm-hmm. bañ nit c'est-à-dire que la haine dafay yàq doomu aadama mm-hmm. parce que premier obstacle la boo bañee nit daf lay empêcher nga am jàmm donc mu nekk loo xam ne c'est pas bien du tout mu am loolu mu am tam ragal parce que mhm. nit bu dundee ak ragal euh, tiit ñëppay tiit ah waxuma ne loolu parce que tiit émotion la mais crainte maanaam ragal nekk ci yow saa yow buggee def dara ngay lox wala ngay ragal ragal boobu dafay jaxasoo sa xel te mënut mënoo xam exactement li nga war a def loolu tam euh, lu bon la fiir fiirange Mm-hmm. ah mooy indi d'ailleurs euh, euh, méchanceté lii lii euh, maman Dak doon wax sànq ak tam nit mu am naxar te bàyyi naxar bi mu dugg ci xolam. Mm-hmm. et ñun ñëpp dund nañu situation boo xam ne sunu benn mbokk wala sunu benn xarit wala sunu jëkkër wala sunu jabar mu mu génn àdduna. Mm-hmm. nit koo xam ne mu ngi del mu ngi nekk sunu biir xol mu génn àdduna am na ñoo xam ne mënuñu. Euh, bàyyi mënuñu ko fàtte. Mhm. donc dañuy continuer di bonloo seen xol dara du leen saf ci àdduna loolu tam c'est pas bien. Mhm. loolu gàllankoor la pour succès euh, beneen bi tam mooy euh, ñaaw njort ñaaw njort parce que su fekkee nit ki dafa ñaaw njort du gis lu baax du gis xewal yi. Mhm. lu muy gis rek mooy. Euh, lu bon yi lay gis mhm. euh, lu koy lu koy métti toujours mu ngi xalaat ne su ma defee lii lii moo may daal mhm. te loolu comme ni ko euh, sam benn xarit di waxee loo craindre rek moo lay moo moo moo lay dab donc am na solo donc première chose mooy lépp loo xam ne dafay bon loo xol doom xol xol doomu aadama mhm. loolu dafay gàllankoor ndam alors ensuite donc lan mooy faj loolu lu tax na naka la nit mën a def mooy fexe ba lépp loo xam ne dafay bonloo sa xol nga génn ko sa xol. Mhm. lu koy lu koy lu koy bégloo lu koy seddal loolu ngay génn mu loolu ngay jël moo xam euh, rafet njort bokk na ci euh, euh, ànd ak ñi nga xam ne ñooñ nga ñoom ñoo nekk sa biir xol ñi nga xam ne buggoo leen. bul sax jage cest à comme ni ko Golbert Diagne ji doon waxee eh, ku mandar sa mandar dorom ak dërëm ñooy ànd c'est-à-dire que su fekkee nit eh, buggoo ko wala lu muy def neexu la bul ànd ak moom bul toog fu muy toog bul bokk ak moom dara mais su parce que loolu daf lay eh, indi ay gàllankoor ci say ci say dund beneen bi itam mooy euh, euh, euh, lépp loo xam ne daf lay empêcher Euh, pour nga gis xewal yi parce que àdduna am na lu metti am na lu baax mhm. mais toujours lu tax ñuy gis lu métti rek wala lu ñaaw rek la ñu gis par exemple instant bi ñu ngi yaakaar ne Sénégal ñëpp bon alors que peut-être am na ñoo xam ne bari nañu ñoo xam ne ay nit yu baax lañu. Mhm. ñu ngi am yenn yu rafet. donc loolu su fekkee nit ki dafa bon loo xolam du gis loolu tey sax du gis dëgg koo xam ne da ngay bon loo sa xol du gis dëgg ñaareel obstacle bi mooy les fausses croyances ah bari na ñi nga xam ne dañuy yaakaar ne euh, dañuy yaakaar dara mais dara leeru leen ci ah. Mhm. Euh, par exemple ci affaire Covid ñi bari da nga leen dégg ñuy wax ne euh, chloroquine dina faj. Mhm. feebar bi alors que ñoom xamuñ ci dara te ñi ci xam xam nañu ne loolu mënul nekk. donc mais terewul ba léegi ñu ngi ñu ngi koy partagé gis naa param benn médecin benn professeur buy wax ne Afrique. am na ñu bari dañuy continuer di jëfandikoo ay chloroquine yaakaar ne loolu moo leen faj te mënu ko faj donc loolu saa yoo gisee doomu aadama te boo xoolee àdduna yépp dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a am développement ñoom ñoo gën a nekk ci kanam ñoom ñoo dañuy préférer am euh, dëgg toujours nekk ci dëgg mais du ñu nekk ci loo xam ne ay kàcc la te loolu parce que boo ci nekkee mënoo euh, euh, li nga war a def mënoo ko def mu mu rafet mënoo ko def mu jub mënoo jub yow sa bopp donc à partir de ce moment obstacle boobu mooy dañu war a fexe ba euh, lépp loo xam ne dañ ko gëm dañ ko war a nànd lépp loo loo loo bëgg a gëm lu mun ti doon même yàlla sax yàlla wax na ko yàlla ku ma ku ma celui qui ne me cherche pas ne me trouve pas. Mm-hmm. cest donc yàlla ci boppam nee na dama la tere nga parce que première chose bi ñu la wax mooy shahada. lu tax ngay def saada bala nga def saada ça veut dire que da nga comprendre danga nga nand lan mooy yàlla. Hmm. bi nga ko comprendre léegi nga xam lan mooy yàlla si nga mun a wax saada mooy premier pilier de l'islam mais ñun en général dañuy eh, continuer di wax yoo xam ne eh, dara leeruñu ci. Eh, di wax loo xam ne di gëm loo xam ne nanduñu ko comprendre ñu ko donc loolu gàllankoor dafay gàllankoor succès troisième obstacle bi mooy sunu adversaire yi. sunu adversaires yi mun na nekk sunu noon yi moo gën a fort mun na nekk ñoo xam ne dañuy euh, euh, euh, xecc benn place wala ay client param su may jaay ay yére ma ne ñëw benn bërëb fekk keneen kooku tam muy jaay bërëb muy jaay cli yére donc dañu nekk ay concurrent donc am na ay niveau concurrent moom garaawul li gën a garaaw mooy noonu mais li nga war a def mooy lii pexe mooy ne saa yoo gisee koo xam ne daf lay xeex wala koo xam ne da ngeen bokk euh, benn euh, euh, jëmkaay wala li ngeen bugg moo moo bokk da ngay xool bu baax nit ki lan mooy capacité am na ñoo xam ne dañuy yuux rek dañuy dañuy soxor noonu rek waaye amuñu doole mënuñu la tere nga dem mënuñ la dem sa dem mënuñ la def loo tere li ngay def nga def ko ñooñu danga leen ignorer bu leen faale am na ñoo xam ne nag boobu leen moytul nañ la fagaagal mm-hmm. ñooñu nag da leen uti ay pexe pour bala ñu lay def li ñu war li ñu la war a def yow nga gën gën leen gaaw donc ça veut que foofu dafa laaj courage fit la laaj c'est-à-dire que parce que su fekkee euh, euh, lépp looy def da nga gis ay noon da nga gis ñoo xam ne dañ lay bañ dañ lay critiquer su fekkee saa yoo gisee di nit rek wala déggoo nit rek wala param ay ñoom madame Cissé bu ñu génnee ci journaux yi gars yi commentaire commentaires yi au lieu mu dem xool photo bi lu muy def mooy xool commentaires yi bu gisee commentaire yu ñaaw mu commencé di bon loo xolam te loolu dañuy indi eh, gàllankoor tam dernier aspect bi mooy hostilité de l'environnement maanaam euh, mun nga dëkk ci dëkkuwaay par exemple comme ni ma ko expliqué fii mun nga nekk ci dëkkuwaay du am liggéey par exemple su ma nekkee ci benn gox par exemple amul liggéey wala ma nekk ci réew boo xam ne comme Sénégal liggéey bariwul wala boo amee sax liggéey dafay lu ñu lay fay du ko du ko ko jaral donc dañuy dem dañuy dem dëkk yi nga xam ne yaakaar nañu ne bu ñu demee foofu mun nañu tekki donc loolu solution la dem bii solution la wala nga nekk ci benn dëkk nekk param saraya jógee foofu dem euh, Ross Béthio parce que yaakaar nga ne boo demee foofu mun nga am tuuti surtout am jàmm tam léeg-léeg nga gis nit koo xam ne mu nekk ci benn dëkk gox amatul jàmm bu génne muy histoire ak nit yi loolu lu mu war a def mooy jógee ci gox boobu sori eh, waa gox boobu parce que mun mënutul ànd ak ñoom donc lépp lu mu mën a def rek dañ koy saboter. Mhm. alors ah, ah, en définitive eh, gàllankoor yi maanaam obstacle yi lan mooy seen njariñ premièrement su fekkee yoon bi nga jël amul obstacle danga war a xam ne yoon boobu du sa yoon. cest di am na keneen ku fa jaar ba pare. Mhm. yoon boo xam ne boo koy jël rek amul dara bu lay am bu bu lay gàllankoor amul benn jafe-jafe. war nga xam ne yoon boobu boo fa demee doo fa fekk dara parce que di nga fekk keneen borom borom yoon bi ngay fekk ci place bi. la donc ça veut dire que toujours euh, obstacle dafay wane ni toujours yoon bi nga nekk sa yoon bopp la du yoon kenn. ñaareel bi dafay obligé doomu aadama. mu mu mu améliorer maanaam mu gën a baax. Mhm. parce que day gën a defaru parce que saa yoo defee benn boo jànkonteel ak benn obstacle benn jafe-jafe benn lu lay gàllankoor. dafay indi ay interrogation ci li nga xam ci li nga gëm ci li nekk sa biir xool donc loolu da koy gën a leeral da koy gën a xool pour nga mën a nekk koo xam ne justement tu vas t'améliorer donc loolu c'est extrêmement important dernier aspect bi nga xam ne am na solo buñ koy bu ñuy wax ci affaire obstacle mm-hmm. euh, ñu ngi ci 18 safar ñu ngi dem ci 18 safar euh, c'est pour man au de du saint homme Serigne Touba c'est un philosophe un humaniste parce que comment tu peux au lieu jour bi muy ñëw rëcc épreuve bi mu fete ko mu ne jour bi may dem tàmbali épreuve bi jour boobu laay célébrer donc ça veut dire que quelque part ku amul obstacle sa dund doo nekk nit mm-hmm. cest à doo nekk doo nekk nit bu ñu xàmmee mm-hmm. bu ñu mën a ràññee ci société bi mm-hmm. doo nekk koo xam ne boo deewee doo am lu ñu nettali sa ginnaaw soo buggee ñu nettali dara sa ginnaaw soo buggee tekki soo buggee affirmer Eh, am tour ci réew mi ci àdduna fi ñu dëkk il faut nga nangu obstacle yi ci la bokk te jafe-jafe yi mu nekk dina am léeg nga daanu mais